أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه نمتي تيري بيد الشجر العرف في فن الصرف كيفية التصنيع naka la ñuy defee ismu tasniya xam nga jàngaloon na tasniya jamu muzakkar saalim balaa mu ñëw si jëmu taksir parce que baat yi tamit dafay wutee bu la jàngalul baat bu nekk nu ñu ko defee tasniya wala nu ñu defee jëmu muzakkar saalim nu ñu ko defee jëmu maana saalim parfois da nga ci am problème waaw jëlee nag nir na lu yomb waaye parfois moom am changement li ëpp daal tasniya da nga si yokk alif ak nun wala yaa ak nun mais léegi-léegi baat yi am yeneen changement yu ndaw yoo xam ne ni jar naa leeral moom lay wax ne ida bu nekk al ismu isim allazi bi nga xam ne hmm. turidu danga bëgg bëgg tasniyatoo def ko tasniya saxihan di lu wér hmm. ismu bi nga bëgg a def tasniya bu dee lu wér la hmm. aw munazzaran wala lu ñu wàcce manzilata saxi wàccuwaay lu wér wàccuwaay lu wér mooy lan mooy am naa rafuraaga waaye dafa maas rafuraaga bu maas moo moo bu wér benn karajul ni ko góor xam nga dafa wér amul amul alif amul waa amul yaa kon dafa wér wa imraatun ak jigéen dafa wér wa zabyun kéwal wa dalwun siwo yooyu wàcc waaye lu wér lañu yore parce que seen ara raag yi dañ koo maas am na yaa wala waaw moom zabyu am na yaa dalwu am na waaw waaye dañ koo maas zitta da nga yokk al alif alif wa nuun ak nuun awil yaa wala yaa wa nuun ak nuun bi duune amalin ci dul benn jëf si waa lu dul kon isim bu wér wala isim boo xam ne nii a ràgg wa dañ koo maas wàcc waaye lu wér la mm. soo ko bëggee def tasniya amul benn jafe-jafe bu dee dafa rafaa yokkal bu dee dafa nasab wala mu jar nga yokk yaa ak nuun fa taqul la ngay wax rajulaani ñaari góor rajulun nga ne rajulaani mm-hmm. bu rafaaye imraataani ñaari mm-hmm. ñaari siwo zabyaani ñaari kiwal mm-hmm. rajulayni imraatayni dalwayni zabyayni bu dee dafa rafaa bu dee dafa nasab wala mu jar kon isim bu wér wala isim boo xam ne wàcc waaye lu wér la nii lay demee بدي من قوسا نك ما يسمى بوخنا موج دفع رج تري على رج ولا موي مقصور ما يسمى بوخنا موج دفع رج تعرف لا رج كوكيد مم لا لا نبي إذا كان بقول لك من قوسا دي من قوس ما يسمى بوخنا موج دفع رج محسوف لي أي بني حسب ياقة نعم نعم خمغه بودي ياغا حسبنكو ما ام فولم dégg nga mm-hmm. uh, ma nga fa yokk alifam noonu rek alqaadiyaani mm-hmm. addaa'iyaani mm-hmm. mais bu ñaa safee yaa nga war ko def tas nii nooy def ka qaadin ñu ki attekat daayin wootekat parce que manquus buy nakira mu faa buy manquus tey nakira dangay xasaf yaaga muy mujj kasra la ko jiitu termine qaadin daayin nga bu ko def manquus nooy wax qaadaani daane déedéet mhm. daf na rëdd taxaa da ngay delloo yàgg fi tasniya ci tasniya mhm. delloowaat fa yàgg mhm. bu fa yàgg nekkee bàyyi ko fa alqaadiyaani mais bu amee al xam nga day yàgg nekk bu fa yàgg ne da nga koy delloowaat fa taqul nga wax qaadiyaani ñaari attekat daayaani ñaari woote kat tu da delloo yàgg kon man xuusit jafewut affaire bu ñaa safee yàgg delloo yàgg rek la wa ida kaana bu nekkee moom isim ba maqsuuran di maqsuur wa tajaawasat mu romb alifu alifam saraasara ñetti baat mhm. xallabtahaa da nga koy changé yaa an muy yaa isim mhm. bi bu fekkee maqsuur la mhm. maqsuur mooy loo xam mujj alif la te ëpp na ñetti baat boo ko bëggee def musanna da ngay jël alif gi def ko yaa loolu it xam nga lu ñu war a jàngale xalabtaha yaa an mm-hmm. ka xublaa aji ëmb mm-hmm. mustadaa ku woo mm-hmm. xam nga loolu maq maqsuur la parce que alif la waaye xublaa ñeenti xaraf la dégg nga mustadaa juróom benn xaraf la kon ëpp na ñett kon bu dee maqsuur la tam ëpp ñett da koy changé def yaa fa taqul nga wax ci mustanaa ga xubla yaani ñaari ëmb mustadaa yaani ñaari ñu woo washasha jàdd na xiyaas xaxqaraani mhm. xam nga xaxqaraa la woon mhm. mooy dellu gannaaw mhm. arujon ilal xalf dellu gannaaw normalement xaxqara yaani la waroon doon waaye ñu wax xaxqaraani loolu dafa jàdd xiyaas comme xublaa nga ne xublaani loolu kenn du ko def xubla yaani la ñuy wax mustadaa mustadaani déedéet mustadaa yaani la ñuy wax xaxqaraa it xaxqara yaani la ñu wax waa ñu wax xaxaraani kooku dafa yaata xiyaas wa xawsalaani ak xawsalaani bil xas bi ñu xasab alif ga xawsalaani pourtant dégg nga xawsala yaani la ñu war maa ngi wax xode yaakaar naa xawsalaani lay xawsa xala loo def yow suba beneen bi mu ngi خوزلان كنبيو مخيا نعم. خوزلان بالحذف خوزليان يعني لو رندون نحسب ألف alif في تسنية قهقرة في تسنية قهقرة أك خوزلان خوزلان موي dox قديس diis dox boo xam ne dafa ànd ak diis dégg nga kooku dañoo dagg alif ka mhm. waaye loolu dafa jàdd xiyaas wa kasa nag nii tuqla bu danañ ko sensé yaan yaa mhm. isa kaanat bu nekkee saa yu soo ñetteel ba mu mu baddalatan di ñu remplacé minaha ci yaa mhm. maanaam bu fekkee ñeen ëpp na ñetti xaraf la wax ne da koy sensé yaa alif gi da ko def yaa rek def ko musanna yii nga gis nii dafa jàdd xiyaas léegi nag su fekkee ñetti xaraf la te xarafu mujj wa yaa la xoon musa naa ko da koy delloo ci yaaga comme fata mu mm. nga fidiyatul ngay wax si jamono bi kon alif googu yaa la xoon mm. fata yun la xoon kon boobaa boo ko def musa naa fata yaani alif ga nga koy yaa mm-hmm. raxan machine guerre mm-hmm. cosaan li mm-hmm. yaa la xoon da nga naan yaani ci fatan ci fatan wa raxan ak raxan gi fii machine firaaran ngir daw min iltiqaay saakine ni si dajeg ñaari sukkoon law ba xet bu desoon mm-hmm. léegi fataa boo fa bàyyee xëccaan googu yokkaat si beneen alif goo xam ne mooy alif musanna noo koy jànge ñaari sukkoon dañuy dajee parce que fataa mujj gi dafa sukkoon mm-hmm. te alifu musanna sukkoon lay doon mm-hmm. fataa ni ngay wax laa xëcc ko bu baax a baax loolu kenn bu ko def loolu waral dañuy changé alif ga doo andi alif musanaa gi muy fatayaane ak raxayaane mm-hmm. ndax seen cosaan loolu la mm-hmm. boo fa bàyyee ñaari sukkoon yi nag doo a mm-hmm. ci jaxasoog mufrad hmm? wax naa ko yàgg firaaran ngir daw mel ni tixaay saakane di yéeg ñaari sukkoon law ba hmm? boo fa bàyyee sukkoon muy fataa ak sukkoon ak musanna xëccaan googu alifu xëccaan googu ñaari alif yi moo leen jàng. moom laa doon wax léegi rek mm-hmm. moo tax il faut nga changer alif bu njëkk gi def ko yaa. ndem cosaan li yaa la. door andi googu nga xam ne pour xëcc la. Mm-hmm. alif musannaa bi mu nekk fatayaani. loolu wax na ko ngir moytu ko min iltibaasi mufrad mm-hmm. ci jaxasoog mufrad dégg nga bil ci musanna على إضافتي بلا فعل يا المتكلم يا المتكلم لو حذف البنك حذفهم ده إيه ما نم بوجد نشاهده كو يا نياري سبب موتا بن نياري ألف دجيا فتا ألف مجي قتيان لا ألف مصنع نعم أك بنيت مفرد بمصنع بجاهسو بلا فعل يا المتكلم مم. xam nga tey mooy sama sama xale bi mhm. fataaya dafa laa yaa mu tëkkalim léegi musanna su fekkoon fataani rek la woon mhm. léegi bu laafe yaa mu tëkkalim nun ngi dafay dagg maanaam parce que musanna saa yi laafe nun ngi dafay dagg mhm. kon fataaya rek ngay wax mooy sama waxamaane bi fataaya fataaya doo xam lan mooy musanna bi ak lan mooy mufrad bi parce que mufrad bi bu laafee noonu la fataaya sama xale bi musanaa bi tamit bu laafee da dagg nun mu mhm. des fataaya loolu kenn du ko def mhm. moo tax foo ñu sens ko yaa mhm. dégg nga sama ñaari waxambaane yi dégg nga moo tax mu ne dañu moytundiku min iltibaasi mufrad ci lan tug mufrad bi musanna ci musanna xaal idaafati bu laafee li yaa mutakallim ci yaa mutakallim law xasibat بني حسب الالف جدا فتا رك نياري واخ مباري بلا في يا متكلم مفرد بمسنا بلو خا من فتا رك لي دون واش جادنا في حمان تي حمان غي خمنا تي سان لي يالون ني ني حمواني بالواو نعم حما يعني لو رندون واي حما واني لنك واخ دفك واو تي سان لي يال وغرفه جات خياس wa kazaalika noonu iza kaana bu nekkee xëy na mu baddale te nekkul luñ sensé bu mhm. umliyat tañ def ko tañ def ko imla mhm. dégg nga umliyat mooy ñu jàng ko comme jàng war sa matee mhm. loolu lañ koy def dégg nga comme matee koy def matee kooku xamuñ cosaan li dañ ko réere dañ ko réere dégg nga alaman bu fekkee tur la mhm. matee xamuñ cosaan bi mhm. majhul la mhm. su ko defee nem def nañ ko rek imlaa googu noonu dégg nga euh, moom it dañ koy changé yaa boo ko defee musanna fa taqul nga wax fi tasniya ci ci tasniyaam mateyaani mateyaani dégg nga cosaan li xamuñ ko gaaw waaye kii kon manquus yomb na mm. ak ismu sahil mm. maqsuur nag wax nañ la bu ñett alif gi dañ koy changé yaa mm. bu dee ñett te cosaan li yaa la alif gi dañ koy changé yaa bu dee ñett te cosaan li xamuñ dañ koy changé yaa léegi bu dee waaw la nag alif gi nga changé ko waaw بوكر في المسنة كن مخام المسنة كن جنة جان وتقلب ذن جال بألف مقصورة ألف مقصور واو مي واو إذا كان بناك مبادرة ديرين شان زي من هاتي واو كأنسان ديفريت كيف نقول نار البوخ اللي ممتي فعلي بي ألف جوجيس شو سال لناك واو إنك يقتش نيتكوا دا يدعونا مي بوجيس شو سال لناك يا إنك يبنكم يا دفع ألف بيشكوا مم لو مو فين تيسين بيني gis nga fata mhm. dañoo def yaa ci mujj mhm. def fa alif mhm. en saa nag da nga alif ci kaw da nga alif la xafan ndong fa taqul da ngay wax asawaani ñaari yet xafawaani ñaari ndong alif gi da nga koy waaw wache sa jadd na fii ridan ci ridan xam nga waaw la ñu naan radda yaani waaw nga xam dafa jege hmm? radda yaani billaay ci yàlla loolu dafa jàdd xiyaas mhm. maa àndoon ànd ak ne moom waaw yu waaw la comme nañu waxee ximawaan yi te ximayaan la ñu waroon doon parce que yàlla loolu mhm. la ñu waxee raddayaan yi mhm. dégg nga euh, fekk waaw la dégg nga woo saani kon tuqala bu danañ changé waawoon waaw idaa kaana bu nekkee xëy na mu badalatin changé wuñ ko walam tumal waaye defuñ ko jéngal jéngaluñ ko comme matee xam nga bu bi ñu xamuñ ko. waaye dañ koo jàngal dama koy def yaa ci musnaa bu dee jàngaluñ ko nag. nga def ko mhm. kala daa bu fekkee tur la. Mhm. dégg nga. Mhm. wa isa musamman dem tuddee nañ bi himaa ci ñoom ñaar. wa isa ak isa kon kala daa ak isa musamman buñ tuddee bi himaa ci ñoom ñaar. la daa bu dee tur la wala isa. Ah, moom ci mën a woo ci fa taxul ne wala dawaani ak isawaani parce que jéngalu kii kenn du leen jéngal moo tax mm-hmm. doo wax mm-hmm. ak la kon la dawaane ak isawaane yi ñuy jéngal ak ñu du jéngal dana ci ñëw mm-hmm. kon jàngal na tur bu wér nuñ koy defee musanna alif ak nuun yaa nuun lu niru lu wérit noonu jàngal na ko man xuus bu ñu xasafee yaa nga delloo ko fa bu ñu ko fa bàyyee nga bàyyi ko fa du leer na maqsuur bu dee ñetti xaraf la te cosaan li yaa la ko yaa bu dee ñetti xaraf la cosaan li xamul ñu doon waaye dañ koy jéngal changé ko yaa bu dee ñetti xaraf la cosaan li waaw la nga changé ko waaw ci musanaa bi bu dee cosaan li xamul lu mu doon waaye kenn du ko jéngal nga changé ko waaw ba tey yu dul yooyu dafa jàdd xiyaas bu ëppee ñetti xaraf nag yaa lañ koy changé moo xam ci waaw la wala yaa boo ko def musal la kon maqsuur it jeex na loolu mooy tënk ba mu ñëw si moom duut moom duut gañ jàngoon nuñ koy defee musal la hmm. mu ne way daa kaana bu nekkee moom duutan di moom duut hmm. fay ji bu dana war ibqaaw hamzati yi desal hamzaam ga hmm. in kaana nim nekk na asliyatan di cosaan moom duut benn hamza gi nekk cosaan comme quraa u jàngkat yi nga xiraatu la woon ko am sa gi cosaan la baat bi la bokk dégg nga danga quraa aani ñaari jàngkat da nga fay desal ga mm-hmm. tas njiitu quraa u mm-hmm. mm-hmm. ak wuddaa u wuddaaw mhm. dégg nga mhm. mooy ku leer kanam mhm. nga dem wuddaa aani ñaar ñu kanam ala walu bu njëkk bi annaasi ko mooy jaamukati yàlla di jàngul alquran wa saani ñaareel mooy ku kanam yooyu al wuddu woo xam nga ne am dëgg cosaan la foofu moo tax foofu da bàyyi am dëgg maqsu mamduud su dee am dëgg cosaan la boo koy def tasniya bàyyi fa am dëgg dégg nga. bu dee am dëgg nag li tas nii li ta anis la da ko ñëw pour jigéenal. Hmm. moom lay wax ne way ji dana war xal bu xaa nga sensé am dëgg waawoon muy waaw. Hmm. in kaar na nekk li ta anis pour jigéenal. Hmm. bu dee dafa ñëw pour jigéenal am dëgg waaw lay doon. da koy sensé waaw xam raa xonq. dégg nga ko def tas nii def da nga jël am dëgg sensé ko waaw muy xam waani. ñaari way xonq. saxraawu àll. من الصحراواني بس كم زوجي برجي جينا لا كون دوكو برسنان حمراء آنك صحراء آني دي ولا لنا يقرأ لكن حمراء واني صحراء واني جي حمراء وصحراء وخالة سيرا في يعني قلو إذا كان بنك قبل ألف تانيز لك ألف تانيز قواوان دواوانك وجب ورنا تصحيح الحمزة وير الحمزة li allah yajtami li allah yajtami ngir waawaani ñaari waaw yoo xam ne lay si nekkul benn maa seen diggante illa alif lu muy alif xam nga léegi-léegi alif gi ñëw pour nekk jigéenal waaye nag dégg nga eh, dégg nga mm-hmm. foofu waaw avant alif ga mm-hmm. comme ashwa u mm-hmm. xam nga ashwa u mooy ku bémpéng ku naqari bët am na waaw après alif moom du doo ñëw ci gannaaw alif xëccaan googu mm-hmm. ashwaa boo ko defee jëm nga def ashwaa waani mm-hmm. ñaari waaw yoo xam ne alifa dox seen diggante dañ koy bañ mm-hmm. moo tax sayraaf yi ne da koy def am dëgg ko fay baax muy ashwaa aani ngir bañ nga wax ashwaa waani ñaari waaw yu alif dox seen diggante loolu arab da koy bañ nga wax ashwaa aani ngay wax dégg nga waaye wal kuufiyoon waa kuufiyoon moom yu gisoon dañoo daganal al wajhani ñaari anam yëpp fi haa moom mhm. waa kuufiyoon yi kuufiyoon yi daganal nga wax waani wala aswa aani xam lu ñu wax mhm. kon noonu la wa na xamra yaani mhm. ñaari way xonq bil yaa ci yaa ah, waaw ñu ne amra ñaari gunóor ah Kunfusaa. waa ni lañu waroon a wax. ndax Kunfusaa u la woon. waa Ashura ak ñaari ak ñaari Ashura. Ashura muy bis tam xarit. Ashura waa wa Kurfusaa ak ñaari Kurfusaa. toogu feranku laayu la. Kurfusaa waa ni la waroon dun. dégg yooyu dafa jaata xiyaas. waaye la doon xiyaas mooy leen jàngal léegi am na gën ko woon changé mhm. wax. su ko defee noon la way daakaar dem nekk na Hamzatu Hamza am badaran di ñu remplacé min aslin ci cosaan lu wér. Mhm. jaata dagal na fii ci moom ak tas yu wéral wal xalb ak jaata bi. Mhm. wala boobu min aslin ci cosaan rek laa bëgg wax. jaata na fii ci moom ak tas yu wéral wal xalb ak jàllar bi. walaakin waaye nag ak tas yu nga wéral am sa ga at jaxu moo gën a lëng. kisaa un. kisaa wun la woon parce que saa yegg suula dana odd xayaa un xayaa yun la woon xayya am na kersa xam nga cosaan li yaa la woon yun kisaa yun kisaa wun ñu waaw ga ca ga def ko sa muy kisaa un yaa goog ci mujj ga ñu def ko alif muy xayaa un kon ñoom dañ leen a jàllal bee ci cosaan cosaan la lañ saa def ko soo waaw boo ko def tas nii mën nga faa bàyyi am dëgg muy kisaa aani xayaa aani mm-hmm. mu nga def ko tasfiya te moo gën a lëng man mm-hmm. nga ko changé waaw it comme ni ngay defee ni ngay changé waaw alif gu ñëw mm-hmm. nga ne kisaa waani xayaa waani nga wax kisaa aani xayaa aani wala kisaa waani xayaa waani mooy daa kaana nem nekk na hamzatu hamzam lil ilxaaqi ngir yéegee ko nga ka ilbaa u comme ilbaa u ak xubaa u mhm. dégg nga xubaa mhm. u moo ne mooy li feeñ ci yaram bi rek ay tomb tomb yi feeñ ci yaram bi te bokkul ci dégg nga mhm. el baaw nag mooy ku rëy ay jogare bir mu waxada ci luñ wéetal xubaa u baagi benn la ziira da nga yokk fi am sa dam ta fii maas ñoom naa liir e xaqi ngir yéegee bi xirtaas xel baaw dañ ko bëgg a ci xirtaas xu baaw ñu bu ko yégee ci xurnaas mhm. mais am sa gi bokkut si dégg dégg mhm. bi dammiñ ci dam fa xurnaas mhm. dégg woo moom xurnaas an jabal mooy bopp doj xirtaas moom këyit la bakkanu doj mooy kaw doj rek su boobaa am sa googu du cosaan mhm. ñëwut pour jigéenal changé wuñ ko ci lu xaraf beneen xaraf mhm. mais dañ koo indi rek pour mu tolloog wasnu xirtaas wala xurnaas tu rajufu dañuy lëngal mhm. alxal bu jàll bi àla tasiyu ci wéral nga ne waxil baawaani su boobaa nga waxil baawaani moo gën a lëng nga ne il baawaani waxu baawaani nga changé am sa nga wala nga wax aw aw ilbaa aani ak xubaa aani mhm. waqila wax nañu tasiwu lëngal gi fii ci mu arjahu moo gën a lëng mhm. su boobaa moo moo buñ jàllar bee ci lu wér ñoo yem mhm. dégg kon bu dee am sa cosaan la boo ko def tasniya bàyyi ba am sa nga yokk si alifum noonu bu dee am sa nag dafa ñëw pour jigéenal da koy changé waaw lu mooy waaw jiitu ko su boobaa ñaari waaw yu alif nekk seen diggante dañ koy bañ ñu ne mën ngaa def mën nga ko bàyyi alif ko si cosaan ne commence waa aani mhm. ñu ne ba léegi mën nga ko changé waaw koo fi yoone daga na ñaar yëpp mhm. dégg nga su fekkee nag am të <laughs> lu wéer la woon mhm. su ko defee xaraf la woon beneen xaraf la woon ñu changé ko def ko am të su baa li gën a wéer mooy nga ba fa am të ga boo koy def tas waaye man nga ko changé tamit def ko waaw su fekkee am tëgg li ilxaaq la pour yéegee ko ci beneen tëggin hmm. loolu rek moo tax ñu def yokk ci am tëgg hmm. su boobaa it ñaar yëpp dagan na nga changé ko waaw wala nga delloo ko ci eh, nga bàyyi ko ci cosaanam hmm. ci niñ ko yokkee noonu am na ñu ne yokk gi moo gën a lëng am na ñu ne jaaweel bi ko def ko waaw moo gën a lëng su ko defee loolu mooy noonu la ñuy defee tasniya ab ismi يريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته